dafa gina yombal yoni ak jot xaalis FIG bureau de chance mooy monigram bi jiitu ci réew mi ñu am lu tollu ci ñeneen fukki banxaas ci ñaar fukki màkkaan ak juróom-ñetta suma waajee suma waajee suma waajee te suma waajee ma leen gënal suma waajee naam mu waa ji foo xamee war ka daay ah, ba ji bu réew yow foo ko maas daal dama toog ba eh? yàgg rek suma yaram jaaxal ma ma jaaxle lool ci suma yaram eh? fu ma toog nelaw mënatuma dara lu ma bëgg a liggéey mënatuma koo liggéey ma tombeeg nag ku baax mu ne ma xaaral ma laayi la biir deel naan war ga daayim war ga daayim nee na ma boo ko naanee ànd ak ca warte loo bëggoon a liggéey liggéey ko sa yaram di dem nga ne ci sa bopp di lappi lappi di tappi tappi moo ma waral di naan war nga daay gis nga ma nii fu ma dem rek maa ngi war ga daay bii mooy bu juróomi dalasi bi bii mooy 601 bi 862. Eh, mi ngi nii waaye waa ji yow lii lan la. bi daami la. war nga daay. waaw wuuy maas war nga daay la ilaha illallah wax ji wax ji war nga daay yaay ministère mii xam ngeen ne lu ma leen wax loolu la bàyyi leen yëpp te ñëw ci war ga daay maa ko wax mos ko seet ni mu neexee war nga daay mooy cooli war nga daay mooy jigi jaga tey war daay mooy jigi jaga war daay ma baax indi mu neex Gamcel yow yaay borom Gamcel ñun ñooy borom ba tax ñu ngi leen delloo ñu kal waaw bayti laay makkatu karama ci at bu ne dañuy tànn fukki nit jëla yóbbu la màkk nga siyaare ji beyti nabil Mustafa ni nga ciy mooy dangay faral di jënd xone dala si crédit bi bu ci yàlla defee sa wërsëg di nga bokk ci fukki nit yi war a dem war a dem màkkatul mu dem siyaare ji yeneen bi sallallahu alayhi lépp lu ci war ñoo koy def gamsel jaaramaay gamsel yaay boroom ci lii man de xaw ma yan nit la yàlla di wërsëgale ren ci makka gi ñu jóge fi rek dem Medina jubale nak jóge Medina ne ñu nga utali makka ndaan la bayka allahumma la bayk la bayka la sharika la bayk innal hamda wa ni'mata laka wal mulk cey cey gamsel billahi defati ngeen ko ay way li wa mané yaay ministre lan la gamsel defati mané lam daan def ak mu nek rek fasiyene bolé fukki nit yóbbu leen ñu siyaré ci makka wala rom lool la gamsel defati yaay ministre lan lay def ba win ni ngay def dal dafa yomb ba de gis nga scratch and win bii kaati fanweeri dalasi moom rek ngay jël boo ko xoosee jël nomba bi dugal ci sa mobile mu ne ràcc dem sa computer ba sa turang fa sa nombaang fa du tere ne ngañ maay ya fa nekkoon ba léegi ña nga fa la fa nekkoon ba tey mu ngi fa mun nga faa am ngañ maay ci xaalis bi waaye itam hmm. mun na laa yóbbu màkk dama ne réewi gaam yi jóg leen de gamsel ñëwati na ci paasi màkk yi dama ne li ci gamsel li na boog li feeñ fii ci gamsel lépp a ngi ci biir scratch bi télévision yi générateur yi lépp a ngi ci biir jël leen xon rek dalasi de scratch mu mun leen a yóbbu màkk ngeen siyaare ji wala Rome lépp a ngi ci biir. lépp a ngi ci biir. lépp a ngi ci biir. lépp a ngi ci biir de. li nëbboog li feeñ. lépp a ngi ci biir li ngeen gis ak li ngeen gisul. mi ngi ci biir a dañ leen kanam. lépp a ngi ci biir yaay boroom. salaamaaleykum. fii mooy El Hadj la. dama bokkoon ci raful gi de xaw ma nag naka la. da bëgg a xam ni mu demee. waaw nu fa demee. gis nga El la bii. Ah. foo wan zero tuutu bii. waaw El laa ko fi indi. safal ko ba mu saf neexal ko ba mu neex boo déggati rek bii lay tax ñuy wax El Hadj bii moo tax ñuy wax foo wan zero tuutu borom El Hadj nag nee na gannaaw bu yéen a koy jënd warga wi. di ko naan mu baax ci yéen ba dee nee na mu delloo leen njukkal. naka paquet yi soo ko amee téeméer nga ñëw El boo dem nag ci réewi Gambie bi foo xam ne fii rek am nañ fa màkkaan soo fa duggee joxe fa sa téeméer ne tekk nag toog déglu weer bu dee bu nekk ak fukki fan juróom bu nekk ci la ñuy def raful bi soo winee dinañ la oo ne la win nga foos bi nag dina win saaku maalo seconde ba dina bi bidon ngi diwlin taat ba nag dinañ la jox keesu drink boo xam ne boo ko naanee xam ne drink la déedéet kay maa la wax lii ah lii neex na di dara naan sa warga warga wu neex nag gis nga warga dafa bari waaye bokkut waaw el xee la foo wan zero tuutu bii dama bii rek la bii dong la dama ne réewi Gambie jóg naan leen te jël carton ñi dajale ko ku ko fi bàyyi bàyyi sa njëriñ ku ko romb romb sa njëriñ foo woon zéro bii el laa moom maa la wax ni yow yaay borom Gamcel ñun ñooy borom betax ñu ngi leen delloo ñu waaw bayti laay natul karama ci at bu ne dañuy tànn fukki nit jëla yóbbu la màkk nga siyaare ji bayti nabil Mustafa ciy bokke mooy dangay faral di jënd xone dala si crédit bi bu ci yàlla defee sa wërsëg di nga bokk ci fukki nit yi war a dem war a dem màkkatul mu karama dem siyaar ji yeenet bi sallallahu lu ci war ñoo koy def gamsel jaaramaay gamsel yaay borom wërsëgalee ren ci màkk gii ñu jóge fii rek dem Medina jubale nag jóge Medina ne ñu ngaa utali màkk ndaan la bayka laahuma la bayk la bayka laa sharika laka bayk innal hamda wa ni'mata laka wal mulk cay yii cay gamsel billaahi defati ngeen ko ay waay lii waaw lan la gamsel defati ma ne daan def at mu nekk rek fas yéene boole fukki nit yóbbu ñu siyaare ji màkk wala Rome loolu la gamsel defati yaay ministre lan lay def ba win ni ngay def daal dafa yomb ba dee naaj anwin bii kaati fanweeri dalasin moom rek ngay jënd boo ko xoosee jël nomba bi dugal ci sa mobile mu ne ràcc dem sa computer ba sa turang fa sa nombaang fa du tere ne ngañ maay ya fa fa la fa nekkoon ba tey mu ngi fa mun nga faa am ngañ maay ci xaalis bi waaye itam hmm. mun na laa yóbbu màkk dama ne réewi Gambie yi jóg leen de gamsel ñëwati na ci paasi màkk yi dama ne li ci gamsel li na boog li feeñ fii ci gamsel lépp a ngi ci biir scratch yi télévision yi générateur yi lépp a ngi ci biir jël leen xon rek dalasi de scratch mu mun leen a yóbbu màkk ngeen siyaare ji wala Rome lépp a ngi ci biir. lépp a ngi ci biir. lépp a ngi ci biir. lépp a ngi ci biir de. li nëbboog li feeñ. lépp a ngi ci biir li ngeen gis ak li ngeen gisul. mi ngi ci ba ca kanam. lépp a ngi ci biir.